ولقد كرمنا بني آدم وأملناهم في البر والبحر ورسقناهم من الطيبات وفللناهم على كثير ممن خلقنا تفليلا وجدت وجهي من تقريمه بانا في سير مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تقريمه بانا في سير مولد من في البحر ربانا wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana fi sahri mawlidi man fil bahri rabbana wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana fi sahri mawlidi man fil bahri rabbana. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki eh, julli yëpp mbokki taalibe yi maa ngi nuyoo di ziyaare ñëpp. ginnaaw nu yoo beeg ziar bi nag ñuy sant bu baax euh, Serigne Touba si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaanal Seex Muhammadul taxa mu yàgg fi lool te wér di ziare mbokki taalibe yëpp nag tey jii ñu ngi fii ci Yarax Kappa ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moom lañu nesër pour amalal ko fi Serigne Touba te mu nekk Kappa. ñu war taxawal kër Serigne Touba gi yàlla dogal bu yàggul ñu am ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ngir ñu tàmbali liggéey bi mu rafetlu ko jox ñu si ndigal waaye boole ñoog Serigne moom Cheikh Mouha Cheikh Abdou Samad moom Serigne Souhaïbou euh, ak Serigne Mbackiyou Faye mi nga xam ni moo ko fi nekkal ñu war def pose première pierre bi le 8 décembre muy dimanche bi ñu dëgmal. ñu ci woo ñep ak talibé yep ak julli yep ndax keur Serigne Touba buñ ko waxee moy keur l'islam moy keur alcorane moy keuru xam-xam te li tax ñu bëgg ko fe taxawal du dara luddul taxé ba ba ak saytaane ci ndaw ñi ba ku wara jang jang jang alcorane ku wara jang xam-xam jang xam-xam ku ñu ñu war la ñu tarbiyé la ba nga amal sa bop ndariñ amal ko say mbokk yakarna yonenté bu fi massa ñew lolu mo la fi indi gaay yu bax yi fi jaar yépp lolu mo leen fi indi kon ñu nit lool rek lañuy ñuy Serigne Touba ci xam-xam ak alquran kon dal ñi ngi wo ñepp ci liggéey bi insha allah taala numéro bo nga xamni mo nekk ci suuf di daw kep ku bëgg jotali say barkelo wala nga bëgg am ben information ci liggéey bi bo ñu contacté di ñu jot wala nga jot suñu adjoint kon liggey baa nonu ñi ngi wo ñepp ci le 8 décembre bi ci pose première pierre bi ñu téerul ñu téeru Cheikh Abdou Samad mu sëñ son téral ko waye and ak mom pose première pierre bi waye it kuy ñëw nga ëndaale sa addiya bo mënu ñewit nga yonne ko xam lu ci waye def sa bop nga wo defal te deureum bu ci waye dugali dina bok ci deureum yi nga xam ëlëk yowmal khiyam suñu borom bu la koy fay di nga dégg lool kon dal wote baa nonu si ñëpp ànd ñu ñaan yàlla ñu tàmbali ci jàmm àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin te muurloo ko dund ci at yu baree bare bàyyi ko feek njaboot gi muy dox ba ilaa yawmi diin barkeb Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf